jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen ànd ak ñun duñu suivre comme ni ngeen ko waxee rek ñu ngi nii ak nga xamante ni moo di Mame Diarra Mame Diarra nag nekk ndaw vraiment ñaan yàlla sunu borom dogal ay dogalam ci moom mu muñ ko aussi tamit dëkk ak famem dëkk ak ay mbokkam jaara ah, nag fan yi ku ne gis na ko ci réseaux sociaux yi ah, tungu ne nag du teew ñi ne daal tey nag dañoo déplacé wu ba Bargny fas yéene Cheikh ak moom waxtaan jaara dañ lay bàyyi nga nuyoo. maa ngi leen di yéen ñëpp may seetaan ñëpp. jaara da ngay jàkkaarloo bi nga wax parce que jaara ni mel ci tiktok bi nii xam nga ni ñëw fii muy bëgg a sëgg naan non waaw waaw naan non ah. Euh, kan mooy maam jaara. maam jaara doy na bëgg na solo daal. Mhm. Euh, jaara ñaataat nga am. man 18 ans 2001 daal. 2001 mën nga ñu nettali tuuti rek. ci maam jaara bi mu nekkee xale. man ba ma nekkee xale raa moom ma maa ngi ni ma dalee damaa safoon saw yee sama yaay ne damay saw mu ne ma demal saw yow dangaa reew ma jug taxaw daanu taxawaat daanu si la ma yëkkatee noonu ma dem sawi feebar bi noonu ma dikkee avant boobu su ma daan dox dama daan fakkasalu di fakkasalu mais jaar naa fu nekk nag entré naa hôpital yëpp def naa ko ma ne sama yaay. bañ yëg si fii nii. d'accord euh, kon avant da doon dox normal. dama doon dox normal mais su ma dama doon dox normal mais benn instant daal laay sumay su dox mu mel ni ku may bu ma may dox di daanu ñu naan man da ngaa réew doxa normal parce que suñ ko amoon xale bu jigéen mën nga se fa nekkoon. Mhm. après bim la dalee euh, nga woo sa yaay wax ko ci guddi avant mooy dal dama yeewu tëdd si lal boobu maa tëdd sama bopp sangu daal di tëdd mais may ma yeewu ne ko yaay damaa def saw mun ma demal saw ma jug taxaw daanu si suuf ma taxawaa daal mun ma bàyyi li ngay def dangaa yaga yow sam ne ko yëkkati ko si la ma yóbbee ma ba nii mais avant boobu dem naa hôpital fan seetewoo yu nekk de yàgg naa si hôpital yi. d'accord léegi bi la loolu dalee la hôpital. yóbbu ma hôpital waaw yaakaar ne affaire yi hôpital la ñun laa fa yàggee. am naa fa ay sept ans huit mois yooyu. hôpital. hôpital waaw hôpital Fann CTO yëpp. bi nga demee hôpital lan lañ la wax ni moo dal. bi ma demee hôpital xam nga docteur mooy loolu yenn saay yi ñu gis seen feebar mais yenn saa yi dañ lay gën lii mooy loolu daal. maman yooyu naka nga ko doon dundee. maman yooyu moom maa ngi nekk xale lii ma woon mais par rapport bu ma si la ma gën a métti. léegi bi nga demee hôpital. Euh, ci temps bi nga fa def kañ nga xam ni man mii kat wax nañ ma carrément lii moo la dal. bu may dem hôpital xam naa ne lii laa mais bu maa ngi gën nekk xale parce que hôpital sept ans huit mois yooyu lañ fa nekk après ñu génn ñu génn hôpital. bi nga dem hôpital est-ce que yaa ngi doon dox normal. déedéet boobu boo fekk na ma lii affaire bi daal ma mais boobu teewul ma am pousse pousse dañ ma daan yëkkati. Mhm. wala su may dox di jàppandu si miir bi. boobu yaa ngi doon dox ak ñaari tànk. maa ngi dox ñaari tànk waaw. Mhm. léegi ci yan moment nga jékki-jékki euh, ñu xamal la ni carrément kat lii feebar la boo xam ne il fallait que ñu opérer ko extra. waaw nee nañ dañ koy opérer mais avant bi sama ginnaaw gi ñu ne dañ koy opérer affaire mais affaire bi instant yi dafa mujjee màgg. d'accord kon feebar bi ci ginnaaw gi la commencé. Mhm. mais bi mu la dalee ci ginnaaw yaa ngi doon dox normal. maa ngi doon dox kay dox samay soxla mais dañ kaa bëgg a léegi naka la def ba wàcc tànk yi. day màgg di dem rek man xam affaire bi day màgg di dem instant yi noonu la nga ndee. ci yan ci yan période nga nga nga nga toll mënatoo dox. ba ma jugee ba ma jugee hôpital. nga jugee hôpital. Mm-hmm, doxatuma woon normal. naka nga naka ngay dundee feebar bi. feebar bi kay métti na wax dëgg neex yàlla dañuy ne moo ñu ko teg mais mhm. Mhm. que daan dox doxatoo nekk na lu métti. Mhm. maa seetlu sa benn vidéo nga doon wax naan ay waay lii rek moo ko sañ daan doxi say soxla tey mënatoo dox vidéo boobu choqué ñu bari. vidéo boobu man nañu ko def sax après dama kaa dindi nekku sama téléphone parce que na lu ma métti parce que daan dox say soxla. dangay xool boo soloo taxaw say magom ñëpp di dox yow nga toog siis nekk na lu metti naka nga koy dundee ci mbedd mi. ci mbedd mi damay firi damay mm-hmm. que lool noonu dina yomb naka nga koy def bëgg a surmonter. damay muñ rek xam ne yàlla ma ko teg mais métti na ma taxaw. te fois lan ngay toog mu lay metti loo xamante ni bokkoon na ci say rêve wala ci say mbébét. damay xam ne sama yaay di fóot sama papa amu doole sama amoon doon taxaw di yëpp du am tey jii da nga ko fóot nga am ni kat nekk lu métti maa ñaan koo mën a jàppale mu jàppale ma li sax bëgguma ko mais dafa nekk ma gënal suma sañoon yu bëgg ma koy faj kenn du ma xamal dara. mu mel ni sax am na ñu daan ñëw di jël say photo ak ay kayit dem di saako ci yow ndimbal alors que doo leen gisaat. am na kay am na ku nekk képp lu métti na ma def moo xam ne la tudd sama photo la ñëw jël photo sama ginnaaw gi ku nekk mu wan ko ba ko sim jox ko xaalis bu bëri instant ñu bëri dañ may laaj xaalis boobu fan laa ko dugal bañ na ko ba dafa yónni doomam ñëw di laaj ba xam tane naa te moom moo ñëw foto ma damaa mujjee nangu samay papier yu nekk ma dégg ko si képp la dëkk Mouhamed lu métti la ma def. def samay kayit ñu bëgg dañu yaakaar ne maa lekk xaalis boobu. Mhm. te ñu bëgg jox nañ ko. Mhm. dafa jël kayit yi dem sàkku ci ndimbal jël xaalis bi lekk ko. jox nañ ko xaalis bu bëri ba su ko sim fii nii ñu bari dem dañ may dab naan yow kon taneegoo ba léegi parce que ko papaam su ko sim lay liggéeyee. ana waa ji jëf-jëf jooju. moom mu ngi fi. yéen koy gis. sama yaay dafa bàyyi na ak yàlla maa mujjee sax nangu samay papier ne ko man samay papier dama koy nangu ba mu ñëwee di ma filmer damaa bañoon ñu ne ma na nga filmer rek man su ma sañoon ñu bëgg maa koy faj kenn du ma xamal dara parce que nit ñi tey luñ luñ la xamal bi suñu xasee la <laughs> que boobu tamit dem ngeen ci Sococim wax leen ni carrément bi daf ko jël. sama yaay mënu faa dem parce que bu demee dañ yaakaar ne d'accord ndax wala wala dara la parce que sama yaay mooy fóot buñ fóotee ñu lekk si naan si. Mhm. du mën a am jot pour dem fenn. Mhm. Mhm. lan ngay toog di ko xalaat mu metti la ci feebar bi. damay metti mais duma duma ko mën a wax. billaay du damay metti torop. Mhm. nekk na ku am jom. ba mu juddoo ba léegi moom laa gis. kenn gën a metti day fóot kenn nekkul sa yaay di fóot. Mhm. nga amoon nga amoon ay rêve ci moom. tey jii nekk nii dañ fee luyee. bu mhm. ma sañoon naa am kër gu ma ko dugal loolu neexut si xol sa yaay di fóot dañuy ñëw di ko yeeku di wax ay affaire yoo xam te neexut te fóot kese lañ séq ak moom. Mhm. jaara mu mel ni fore naa ci wéw bay que ni seex nga. seexal naa sama seexloo dafa gaañu ñeent fukki fan la tund. d'accord euh, xam naa damay ñëw ci sa diggante ak Waly ban relation nga ñam jaa jaaraa ngi reetande. jaa xam nga jaara nag Daara nag daa mel ni nag daa mel maa ngi doog a laal waayam ji sa digganteeg Waly. Waly ni ku baax la dama daan dajale sama xaalis ndékki sama xaalisu reer bu ko defee waa kër gi naa man yow di nga dee nag kii jar na ko man nag man Waly dama kaa bëgg fan yii laa am dugg parce que lu ñu naan lépp fit moo koy mottali mais su ma daan dem sa buntu balaa daan taxaw lu ma dugg ndax policier yi dañu naan buur aayut ndag yaa aay dem déglu ko ba mu jeex ma jagaat oto ñëw risque la mais man dama koy def parce que jagal na ma ko. doon na waykat bu baax ba si ñoom moom moo ji ñëpp waykat yëpp samay xarit la ñëpp ñëpp su ma limee damay juum. keroog bi nga ñëwee euh, fee di parcelle Wally jàkkaarloog yow bàyyi ñëpp wooy la. waaye ma ne ma noo tudd ma ne ko soxna Diarra si laa ne comme teraanga teraanga koy fay xaaral defal la ko tableau parce que man bëgg naa lépp lu ma ne defal ma fay ka ko mënuma kaa fay sax mais damay jéem. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. tey lan ngay xaar ci bonne volonté yi li ma leen di ñaan la ñu dim ñu dimbali ma te yàlla tax parce que fi ma toog ne bëgg dinaa fay jóge wala sama yaay am fu mu dëkk parce que weer ak ma dafa gaaw te fuut mën mën ta faj dara. kon mu mel yoo xam ne yéen tamit a ngi ci kër gi. na torop mais sant yàlla rek que dama naan lu am yàlla la. Mhm. Mhm. lan moo nekk ci série yi tamit. damaa neex rek ma gis ngay di ko def man su ma ko defee dinaa dem. parce que mbir mi da ngay da gëm sa bopp lépp loo dem gis gëmee sa bopp da ngay dem. ah kontaan naa euh, amoon jàkkaarloo ak yow di wax ñi nga xamante ne tamit euh, bëgg nañ ko jàppale numéro téléphone mu ngi doon di daw ci euh, écran bi di nuyu yaayam bu baax a baax démb déggoo naa ak moom di wax tamit ñi nga xamante ne daanaka dañuy liggéey ci feebaru jàmbur nañ ko bàyyi parce que nit ki feebar nga ñëw seen kër jël ay kayit. jël ay garab jël ay photo dem ni nañ ko jàppale ñu jox la xaalis bu bari nga jël ko dem tëdd ci lekk ko man loolu xaw ma nan la ko nit ma ne waaye lu mën a xew rek yàlla moom mooy buur boo xam ne day niit te niitu yàlla moom kenn mënu cee rëcc en tout cas muñal li dal nii moom euh, li ñuy wax rek kaso ak laago ñooyam jommul kenn en tout cas ñaan yàlla mooy ñu mucc gu rafet rek tey euh, sa kàddu gu mujj ak ban message ngay lancé aussi. maa ngi nuyu sant parce que bu la sama feebar bi ñu lii ma ko mais am ñoo xam ne dañoo baax dañuy ànd ak man si TikTok bi muy Assou Diop Oumy Ahmed Métof ñoom ñëpp comprendre nañ ma si lépp nday faama ñoom ñëpp nday mati maa ngi leen di béggee parce que kulim da ngay juum maa ñaan nañu dimbali ma te yàlla tax su ma sañoon du ma ñaan mais ni ku nekk doo def li la gënal. lan nga ci sama mag la. yan relation ngeen am yéen ñaar. sama mag bu baax la amul benn problème. bëgg na ma wax dëgg yàlla lu mu am bokk ko ak ñun nit ku baax la. lan moo la gën a lan moo la neex ci moom. li ko dal méttiwu ko daal maanaam loolu moom gën a métti neex si moom parce que bu ko neexoon li ko dal ne du génn dem fen mais defu ko daal dafay dem si ay morom moom fu nit ñi nekk mu ngi fa jenewu ko si dara daal terewu ko def dara. Mm-hmm. dañu koy jàppale rek moom tam mu dañuy jàppale. parce que li ko dal nii dafa métti da nga daan yor say tànk di dox nga dem ba doxatoo loolu noonu dafa métti parfois dafay am lu ko métti te kenn du ko def dara mais dañ koy comprendre rek parce que bu xalaatee ne dafa daan dox nga di ko di dem te moom mënatul loolu rek dafay am lu ko métti si loolu. man nga koy dundee ci mbedd nga xam ne souvent yaa ëpp looy génn. moom nag pour bu fekkee waa Bargny la moom waa dëkk bi yëpp sax laay wax jàppewuñu ko ko handicapé parce que moom fu mu toog sax da wax man du ma handicapé jàppeewuñu ko loolu parce que moom firi na fu ay moromam di dem mu ngi fa bañ naka ba fan yi sa dafa tijji benn groupe bi def ay théâtre ñëpp fekk si kasi moom kase moo si handicapé te terewul daal wu ko si dara daal. nii xale nga yaru ba jaara am sutura bay bëgg a di kenn xamul ko dara si feebaram lu ko naqari sax kenn du ko xam te defe naa ne jaara koo gis nii nii nii bu ko gis jëmmam bi li muy dundaale waxu ko kenn ku ko war jàppale rek la bëgg ku ko jàppale rek la bëgg wax dëgg fa mhm. yaatu. actuellement lan nga ñu xaar ci bonne volonté pour ñu jàppale ko. ah ñu dimbali ko rek sonn na sonn na yaayam sonn na ndaxte yaayam mooy mooy fóot yor leen papam dafa feebar ay loxoom daa bay yaayam ma leen di dimbali te benn loxo la wax dëgg fa yàlla. am nañ nag ñu leen ko mën a defal mais gisuñu leen xëy na bonne volonté la ñuy oo ñu jàppale leen ku leen si mën a jàpp tamit nga jàppale leen. Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen àndoon ak ñun du ñu si li ñuy wax rek képp koo xamante ni am nga jafe mën nga ñu contacter ci numéro boobu di service commercial bi jafe-jafe boo am rek incha allahu rabbi ak foo mën a nekk ci réew mi dinañ ñëw pour jàppale dinañ ñëw pour partager ko li ñuy wax rek people 221 moom xeebul kenn chaque jour rek mu ngi ci biir banlieue bi chaque jour mu ngi ci askan bi euh, di jéem a xool jafe-jafe doomu aadama yi tey nag ñu ngi fii bari ñi seet si woon Maam Jaara di ko ñaanal yàlla sunu borom defal ko jàmm bàyyi ko ay njabootam bàyyi ko ay waajuram ba yéene bi nga xam ne am na ko ci ñoom yàlla sunu borom mottali ko di leen jox yeneen dig daje ci sunu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf.